noo leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii nga xam ne noo ngi ci biiram ñaan sunu borom li weer wi làmboo ci ay xéewal ak i ngëneel lekk barakaat lépp nu bokk ci jële muy yërmande sunu borom jéggalam ak gore ci sawara ñaan Seex Muhammadun lil Muntaxa mi fi nekk sintu Tuubaa sunu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool ànd ko wér àggale naalam yépp ak yéenam yépp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 sëñ Mbàkke Abdurahmaan bismillah aawuzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala sayyidina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum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 kon mel na ne doon taxdiit alal say su boobaa nag la ñuy wax sadaqul misli foofa la ñuy wax ab jànq akub jeeg mën nañoo wutee waaye aqallu sadaq ñépp a ci yam ab jànq ak jeg ñoo ci mooy li nga xam ne mënee suta mayee jigéen te cen te alal ja aggut foofa te loolu it jafe bi ci am mooy àll bu ñu ko xoolee ci rubon dinaar day soppiku day soppiku tey tey bi may boo mooy ko xool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 kon ñuy sàkku teewaay ñëpp yàlla na suñu defal nu tawfiq nangul nu koor gi nangul nu mboolem ibaadaat yëpp ak Seex al Xadiim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiiban